ndaxte ku def sama coba baay bi nekk ci kaw yaa di sama rak sama jigéen ak sama ndey saar fukk ak ñett léebu baykat ba bés booba yeesu génnoon na ca kër ga toog ca wetu dex ga mbooloo mu bare dajaloo ca moom ba tax mu dugg ci gaal toog mbooloo mépp taxaw ca tefes ga noonu yeesu dégtal leen lu bare ci lépp ne leen dafa amoon béykat bu demoon jiwi bi muy saaw toolam nag lenn ci pepp mi wadd ci kaw yoon wi picc ci daldi ñëw lekk ko lépp leneen ci pepp mi wadd ci bërëb bu bare ay doj te néew suuf mu daldi sax bu gaaw ndaxte suuf si barewul waaye bi jant bi naajee mu lakk wow ndaxte amul ay reen leneen nag wadd ci biir ay xaaxaam xaaxam yi daldi jóg tànc ko li ci des dal ci suuf su baax nangu ba def ay gub lii antu ba mat téeméeri yoon lu ëpp li mu jiwoon lii mat juróom benn fukk li ci des fanweer déglul bu baax yow mi am ay nopp lu tax yeesu di wax ay léeb bi yéesu waxee ba noppi ay taalibeem jegeñ ci laaj ko lu tax mu di leen wax ci léeb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 jëkkaleen a dindi jëmb bi takk ko ay say lakk ko waaye ngeen semb dugub ji ci sama sàq léebu doomu fuddën gi yéesu waxaat leen beneen léeb ni leen nguur yàlla aji kawe ji dafa mel ni doomu fuddën bu nit jël ji ko ci toolam doomu fuddën moo gën a tuuti ci jiwu yépp waaye bu saxee mooy sut ci gàncaxi tookar yi di nekk garab ba picc asamaan ñëw tàgg ci caram léebu lawiir bi yeesu teg ca beneen lépp ne leen nguuru yàlla aji kawe ji dafa mel ni lawiir bu jigéen jël jaxase ko ak ñetti andaari fëriñ ba kera tooyal bépp di funki loolu yeesu wax mbooloo ma ëmb na ko ci lépp te waxu dara ludul ci lépp noonu am lañu waxoon jaare la ko cib yonent bi mu naan dinaa leen wax ciy léeb di yëgle yëf yu nëbbu li dale ca njalben ga ba bésu tey ci kaw loolu yéesu bàyyi mbooloo ma dugg ca kër ga taalibeem yi ñëw ci moom ne ko firul nu léebu jëmb bi sax ci tool bi noonu yéesu tontu leen ne doomu nit ki mooy jiw bu baax wi àddina mooy tool bi ñi bokk ci nguuru yàlla ñoo di jiw wu baax wi ñi bokk ci iblis ñooy jëmb bi seytaane mooy noon bi ko ji tukkitel àddina mooy ngóob mi te malaaka yi ñooy góobkat yi ni ñuy dajale jëmb ba lakk ko noonu lay nekk bu àddina tukkee doomu nit ki dina yabal ay malaakaam ñu jële ci nguuram lépp lu yóbbe nit bàkkaar ak ñiy def bàkkaar sànni leen ci safara foofa dees na fa jooy te yeyu booba nag ñu jub ñi dinañu leer ni jant bi ci seen nguuru baay déglul bu baax yow mi am ay nopp léebu alal ju nëbbu ak léebu per ba yeesu teg ca ne nguuru yàlla aji kawe ji dafa mel ni alal ju nëbbu ci tool nit ki ko gis nëbbaat ko xolam sedd ba mu dem jaay li mu am lépp jënd tool ba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 motax mu and ak katanu def ay kéemaan ndaxte erod japon na yahya yew ko tëj ndaxte erod takon na erojad jabaru filit magam te yahya dan ko wax jaaduwul nga denc ko erod nak bëgg ko ray waye dafa ragal nit ñi ci liñu tek yahya ab yonent biñu ca tege ab dir nak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 ña fa dëkk xàmmee yéesu yónnee nag ca diwaan bépp indil ko ñu wopp ñépp noonu ñu ñaan ko mu may leen ñu laal ca timbubam rekk te ku ko laal daldi wér saar fukk ak juróom farisiyen ya ak aada ya ca jamono jooja amoon na bés ay farisiyen ak ay xutbakat jóge yerusalem ñëw ci yéesu ne ko lu tax say talibé di moy aaday yoon yi maam yi tëral ndaxte duñu raxas seeni loxo bu ñu lekk waaye yeesu tontu leen ne yéen itam lu tax ngeen di mooy li yàlla santaane ngir topp seeni aada yàlla nee na teralal sa ndey ak sa baay te it ku móolu sa ndey wala sa baay des na la rey waaye yéen da ngeen ne ku wax sa ndey wala sa baay li ngeen war a jëriñoo ci man jébbal naa ko yàlla kooko amatul waru garu teral baayam noonu bi ngeen kàdduk yàlla ndax seen aada yéen ñi naa feq esayi waxoon na bu baax ci kàdduk yàlla ci seen mbir bi mu naan xeet wii ñu ngi may teral ci seen gémmiñ waaye seen xol sore na ma seen màggal amul benn njëriñ ci li nuy jàngale dénkaane nit kese noonu yeesu woo mbooloo mi ci moom ne leen déglu leen te xam du li dugg ci gémmiñ mooy indil nit sobe waaye li ci génne mooy indil nit sobe bi taalibe yi déggee loolu ñu ñëw ci moom ne ko ndax xam nga ne pharisien yi dañoo mer ndax loolu nga wax yeesu tontu la ne garab gu sama baay bi ci kaw jiwul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 li génn ci gémmiñ mu ngi jóge ci xol loolu mooy indil nit sobe ndaxte ci xol la xalaat yu bon yi di jóge ak boom njaaloo ndoxaanul yàqute càcc seede lu dul dëgg ak saaga yooyu ñooy indil nit sobe waaye lekk ak loxo yoo raxasul du tax nit am sobe yeesu faj na doomu jigéen ja askanoo réew kanaan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 ay gumba ay lu ak ñeneen ñu bare ñu teg leen ci tànk yeesu mu faj leen nit ñépp waaru ndax gis nañu lu yuy wax làggi yu wér lafañ yuy dox ak gumba yuy gis ñu daldi màggal yàlla buuru israel yéesu baleel na ay mburu ñaareel bi yoon gannaaw loolu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 ñew ci wàlli magadan sar fukk ak juróom benn kéemaan gu jóge ci asaman, amoon na ay pharisien ak ay saduseen yu ñëw ci yeesu ñu fexe ko fiir ba laaj ko ne wonnu kéemaan guy firndeel sak yonent te mu jóge ci asaman, noonu yeesu tontu leen ngoon gi da naan du taw suba ndax asamaan si dafa xonq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 gannaaw loolu taalibe yi jàllaat dex ga fekk fàtte nañoo yóbbaale mburu noonu yeesu ne leen wottu leen te moytu laweeru farisien ya ak saduseen ya bi ko taalibe yi déggee ñu daldi werante ci seen biir naan nun de indaale wunu mburu waaye yeesu yëg loolu ne leen yéen ñi néew ngëm lu tax ngeen di werante ci seen biir ndax indaale mburu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 noonu ñu xam ne yeesu waxul woon lawiru mburu waaye ñu moytu njàngalem fariseen ya ak saduseen ya Pierre wax na ne yeesu mooy almasi bi doomu yàlla bi ñu fa jógee yéesu dem ca diwaanu sesare bu filip foofa mu laaj taalibeem ya lu nit ñi wax ci doomu nit ki mooy kan taalibe yi tontu ne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 yalla tere borom bi lolou dula dal waye yesu wàññiku daldi ne pierre Sorema seitané buma bu ma xatal nit ngay fonk waye du yeufi yalla. gannaaw lolou yesu ne talibé ya ku bëgg aw ci samay tank na bayyi bopam te gaddu bant biñu ko wara kohamne, daaj doora top ci man ndaxte bëgg nga rawale sa bakkan di nga ko ñàkk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 saar fukk ak ndamu yeesu jolli na ci moom juróom benni fan gannaaw gi yéesu àndoon na ak piyeer saak ak yowaan rakkam yóbbu leen fu wéet ci tund wu kawe lool mu soppi ku fa seen kanam xar kanamam di melax nib jant te ay yéreem weex ni leer naka noonu ñu gis yonenti yàlla muusa ak iliyaas di waxtaan ak yéesu piyeer nag daldi wax yéesu ne ko sang bi bég nanu ci sunu teew fii soo ko bëggee dinaa fi defar ñetti mbaar benn yow benn Muusa ak benn Ilias waaye bi muy wax niir wu leer muur leen te baat jib ca niir wa naan kii mooy sama doom ji ma bëgg ci moom laa ame bànneex déglu leen ko bi taalibe yi déggee baat bi ñu ne nërëm ci suuf daldi tiit lool waaye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 Yen niti jamono ji yen ñi di te dëng ba kañ laa war a nekk ak yen ba kañ laa leen di wara a muñal mu ne leen indil leen ma xale bi fii noonu yeesu tëkku rab wa rab wa génn ca xale ba mu daldi wér ca saasa bi loolu amee taalibe ñëw ci yeesu laaj ko ci pegg lu nun mënunu woon a dàq rab wi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 léegi ñu jébbal doomu nit ki ci loxoy nit ñi dinañu ko rey mu dekki ca ñetteelu fan ba bi ko taalibe ya déggee ñu am naqar lool